xam nga Médina booy Médina boo ko déggee déggin la laaj ndax Médina moo jiitu République du Sénégal la Médina est née en 1914 le Sénégal sur le plan République est né en 1960 kon Médina moo mag Sénégal ci ay at ci République bi moo tax Médina ma ne moo sut ay loi parce que loi République moo ko indi droit République moo ko indi te Médina bi jiitu République amagul bu dee ci diine tamit. dëkk boo xam ne naan Sidi Hadj malik moko tuddé Medina ñoo ne Serigne Touba bi dem ci geejgi fi la jaar fi maire bi nek nekkoon kër kër sidina isa donc suñu la Medina suñu lool loolu Medina moy Medina ñu am tour lañu avant maire bi ñu am histoire lañu avant maire bi bi nga dalé dégg Paco Jackson xamoo maire donc ñom ñu yàlla baxal lañu avant maire yàlla def ñu ànd dem ba daje war andando àndandoo Médina jamono juñu ak ñi ko yàlla jaglél mais ñom yàlla dimbal na leen demuté maire amul te après mairie yàlla day kon ne di leen dimbale ñu doon li ñu doon kon ma di gërëm di sant